Sénégal a neex a neex suñu réew mi rek a neex

Jaaduwul maa dugg jaaduwul maa dugg. jaaduwul jaaduwul ma jaaduwul ah ma dem kaa yaa ngi nii. ah kaa yi fii la fii fii fii. waaw acca wàcc wàcc wàcc ñangu wàcc acca. fii de gannaaw arbitre bi gannaaw arbitre bi waaw fii de fii de fii de gannaaw fii de fii oh da ngaa la yow yow xamoo dala yow xamoo dala. asalaamaaleykum. waaw. atiwaat. waaw si loolu ay joueurs quoi daa bëgg jógee Europe bëgg ñëw recruter ay joueurs. ñëpp leen. waaw ñu ñëw romb nii. ñu romb ñëw ñëw romb nii gis leen. ñu def geste yu garaaw geste technique yu garaaw sax. dëgg la waaw ma xam ne ñii am nañ talent. dëgg la léegi ma bëgg a organiser benn test. dëgg la waaw bëgg bëgg leen cee boole. yow loolu la. yow kan man man Sadio Mané junior. lan Sadio Mané junior Diagne. ah ayca man nga ne Sadio Mané man. man championnat en France deuxième division. Ah. waaw c'est ça. ah foofu laa doon football. ah yow foofu laa dugg. waaw foofu yaa yaa duggoon fii bi. génn ci télé bi. waaw man la waaw. ah <laughs> yow man la waaw maa duggoon bii bu rëy ba ah. continent continent. ah wax nga dëgg lu tax nga génnaat ci kon ñëw ñëw fii ñëw fii ci suuf dama am vacance quoi ah wax nga dëgg ma ñëw fii wax nga dëgg wax nga dëgg gis leen dëgg la ngeen def geste technique raw dëgg la ñun moom dañoo technique ñun léegi ma bëgg man nga jàng ko damal damal damal am am aja eh la la kay ay la la ñëw doon la doon la waaw léegi léegi ma bëgg organiser benn test waaw léegi léegi suñu waa laa bëgg organiser quoi léegi nag gis naa leen quoi bëgg leen ca boole yéen uh-huh. dama bëgg a benn équipe ñu ñu ma mën a boole ci test boobu tamit uh, fan nga boole leen pour boole leen ci quoi ñaata xaalis ñaata ñaata xaalis bu gagné lu muy am bu gagné di nga am un million mais boo gagné tamit léegi un million daal un million un million un million baax na saako la baax na eh na nga def ñaar ñaari cent franc nga am ma am. mais tamit bu ñu jógee ci loolu. Hmm. maanaam ki jël final ku gagné tournoi bi. Hmm. dañoo yóbbu Europe. non ñu ñu moom ñu moom jarul nga ñu yóbbu Europe ñu yóbbu ñu fii Kër Madaaro foofu noonu ñu yóbbu ñu Kër ma ñu jënd mango ak comité ñu sangu piscine bi foofu ba tey baax na waaw loolu la woon quoi. Hmm, am bëgg leen a boole ci bokk nañ bokk nañ ma ngeen ma woon yóbbu foo xamante am na yeneen jour mën fa recruter wala. ah ñaw ñaw kay nekk fii bàyyi nañ leen ko wax ñu eh, football ak eh, paa yi. Eh, wax na wax na wax na wala mu ko dégg. ñu football ak paa yi paa yi nekk fii ci kër yi. voilà waaw ñoom ñoom paa yi ñoom bunduxu ñoom ñoom Ba Baba Jos ak ñoom Imaam ñooñu mën nañu football ak ñoom. ñooñu mën ñooñu mën. ñooñu mën kay. yaa xam nga. boo boo tànnee benn équipe dañuy dóor lu bari de. waaw dégg nga acca waxal loolu. waaw waxtaan nañ. ça va ça va. waaw ça va ah, kay. waxtaan nañu fële. naa ngeen pare. waaw mënoon taxaw nañu fee ne. waaw léegi léegi. waaw kër gi kër gi. waaw xam nga kër gi. waaw am na am na ñetti faa. ñeent ñeentu. waaye la ñeneen ba. ay pa waaw léegi ñoom. ñoom ay pa waaw pa waaw dañoo mën a fubal de. léegi ñoom xool leen rek lu ci bi xool leen. baax na baax après maa ngi maa ngi a. waaw ok dama nekk ok dama la daay de masala. atiwa paas ma paas ma nañ toll nañ toll kañ toll kañ ñaan ko léegi xam nga kóor bi tey daa sax. waaw léegi dañuy toog fii ñu dal dégg nga. waaw léegi boo defee ñu arrêté ñu ñu ñu daan doon fee marché bi ñu pare ñu tey ko préparé ñu ñu téye suñu suñu suñu énergie bi dégg nga dégg léegi yow yow yow yow ñaar cent franc nga am sa xew. yow ñett cent ñeent cent ñaar cent franc la ñu. léegi yow jëlal fukk jox ma ca juróom. déedéet du ma laal loolu déedéet ñaa ngi ko ndax xanaa man damaa def. voilà déedéet bàyyi ma jël juróom yi nga jël fukki fukk juróomi. non non waaw non garaawul garaawul fa def loolu waay bu lee waay. déedéet déedéet ñaa ngi ko man moom du ma jël loolu. léegi jëlal def. waaw merci. yaa xam ah imaam imaam kat maa la woolu woon boo gisee ma woolu la da ngay nit ku baax koñ bi ñu nawloo la lool ci na ba gépp jox la cër bi nga moom yàlla dogal na sama ñaan ñi xuloo xuloo boo xamante ni kenn xamul lan mooy seen problème xuloo bu ñàkk fayda boo xamante nga di imaam ma toog ak loolu chaque jour mais xuloo gi ñu xuloo dérangé na ma tey jullit lañu moo tax ma ne naa woo imaam mu ñëw toog mu toog ak ñoom dinañ xam ba xam xuloo lu ci yàlla wax ah loolu dina si yàlla wax ay jullit ñu xuloo ñetti fan ngeen di rombante tuddante wala nuyante wala gis njëkk faatu moom safara nga jëm bu dee ku ñëw sa kër la nag xanaa du jullit ah mais man moo ñëw sama kër tooñ ma di waaye jullit la mbir mi féew ngeen laayante biir yéen ñaar man nag damaa ñëw pour laay leen biir mhm. ku njëkk a dee moom tooñ na ah ku tooñ ku tooñ ko te ngeen a bañ a indiwaat beneen xuloo te déglu imaam li mu leen wax ci weeru koor la nekk sawru ramadan ngeen xuloo ñetti fan ay julit mu leen di waar leen ko hmm, baax na imaam ak kon damay borom as baax na du ma lay biir kenn mu jëfee di si hmm. bëgg moo magum jëm ngeen ngeen baalantaax safara métti na ah, la tooñ kay moo lay jéggal ma bopp la ah, mu ngi nii du jéggalu fekke si woon amal ah, mi ngi noonu jugal biir laa wax jugal jox ma loxo. da ko a woo ci rukkoo la ak pour la jugal jox ma loxo. ndax ndax moom moo ñu sàmm. imaam gars yi ñu dëgër bopp. imaam imaam doguma la yàlla ba la dee dog. amiin bu ndox. Hmm. waa xombal gépp nee na yaa gën a fàtte xombal gën a dëgër bopp xombal bu ndox gand yu yu béy ngir yàlla boo ci rusul kenn rusul sax ramadan daan utaas bii di kilifa ci dëkk bii ci weeru koor gii xanaa ngeen rusul yàlla suñu borom ngeen baal a àq. déggu ustaas wax. man kii xaw ma imaam la xaw ma oustaz mais euh, lu muy lu muy lu muy waaboo côté ni waabo oh, waaw dafa waaboo côté kay yow waxuma la bay yow mais da nga leen rëccal waaw moom kay waxal ci moom yow kenn du yow ab jullit daal naan su tooñee baa ñu tooñ ko moom su ko nangoo sax moom su doon cent la quatre vingt nan ko ko mm-hmm. te ku njëkk ñëw si moromam ne ko baal ma àq moom moom yiwam loo defoon si bàkkaar yàlla jéggal na la. ak maa la njëkk la maa la njëkk sama waay la nag <laughs> imaam moom yàlla daa def ne sama waay la man man sama waay la man man maa la njëkk baalu ñu xamante nañ bu yàgg imaam ñu soog a ñëw man maa la njëkk baalu daan na ma romb di sàmm dëkk ba borom jàmm ngi yow kay xanaa da nga kaw borom jàmm la <laughs> ñu koy gisee amul benn fora rek waaye maa ngi doon ko dal waay pour la non pour la ku baax la oh. ku baax a ngi ñu gën a ko lii la yàlla bëgg ah, mi ngi noonu imaam jërëjëf kër yàlla yàlla fay lii ab julli doon ko man fekk julli ne waaleykum salaam sant yàlla alhamdulilah kilifa laa ci ni nga néew waaw ah, ma nga cere ma gën laa fi nekk damay doog a jóge Europe nag ah booy soxla naa la boo pare hmm. soxla naa la trop baab jox eh, non soxla naa ko nitu réew ma rek ngay bañ a gis déedéet soxla ma xaalisam dama koo soxla booy xam nga la laa soxla ci yow dama seetlu boo ñu romb lu ñu jël affaire nañu ay wadu di wadu yi yooyu noonu ay zaaru xeetu ay ngele menees ñun gëmuñu yooyu ay bàyyi soxla naa leen te gara wu garaaw nga fekkoon ni ñu toog te boo demee dërëm yëroo ko ak ko te sa bopp bi maa la ko dàqoon def dama daa watu ba sama bi la asamaan ñu ma daggal li ngay góobal daa bëri jox su wàññil jox su wàññil ah yow lii kañ la la du ko jox non non ko boole wàññil sax lii ngay def waaw eh, xanaa nit bu ñëwee eh. nga war koo mën a déglu xool xool lan la lan moo waral ñëw ah jox léegi lan mooy ca waaw ah, mimi daal leen la man damaa jógee Europe bul ki dem waaw ñëw fii day ñaari xale fii ci bunt bi ne ñu mën a football am talent trop man maa ngi tudd Salimane Junior Ndiaye war mee woowe Salimane Junior maa ngi si jàkka jëkk revenu dama doon football France deuxième division ah. laa nekkoon doon football léegi ma ñëw gis ñaari xale yi mën a am talent trop waaw loolu tax nag mu ñëw jàll fii ci biir hmm? waaw ñu waxtaanee yéen maa ah, bëgg a organiser benn test quoi pour ah. recruter ay joueurs quoi test football pour ay recruter ay joueurs leen Europe mhm. waaw mooy yéen lañ ci yéen lañ yéen yéen lañ quoi pour ngeen pour ngeen bokk test ñu football pour ah, a football fii. ñaari booy yi mën a football te am talent trop mën a romb li may li may li may ñaaw yi bëgg bëgg recruter ay joueurs nag yóbbu leen Europe. yow sooy dégré di suyeer ñun ngay xool ñun suñ classe bi. oui suñ classe bi waaw. ah yow su dee da nga aase nga ba. teg ci góor la ñun ña ngi mel ni jiital rek. Ah, léegi ah, bool boobu léegi tournoi boobu léegi ku ko ku ko gagné. waaw si moom ku ko gagné tamit. si si déglu bu amay ah, déglu waaw. am na waa kii moom xaj na déglu. kenn waxal àggale booy. ah tournoi boobu te si moom ku ko gagné tamit di nga am un million. un million. ni nga ko gagné ni nga ko am. un million de. ku gagné am un million. million ci tournoi bi rek tournoi bi test la test la quoi ci biir quoi. football kese la. football la. fan lañ koy footballee daa test waaw test ci biir tamit boo boo boo gagné test boobu tam dañuy yóbbu Europe. <laughs> mais ku gagné ku gagné tournoi boobu tam da ngay am un million. ah. <laughs> xam na xam na lu ma tudd yow ah commencé defar walis xam ne dañuy dem léegi ñu ñan nga bëgg a tëgg tournoi bi fan la. waaw non ñaar ñaar ñaar def yi. lambal fii lambal fii am na ñaar ñu romb fii. lambal fii lambal fii moo lay. lambal fii rek. maa ngi tànn. lofaan duski nan may woowe attaquant da bayar ni mindik maa ko raw ah imam ah. imam imam imam ma ni si yéen imam la waaye si jiir ji mhm. ak terrain bi lofaan duski maa ko gën a garaaw <laughs> ah imam waay imam imam changement bi garaaw na di ah yéeme na trop mais booy football bi ñeneen ñan la laa bëgg a xam ma ñun ñan la maanaam ñun ñii ñun pare nañ léegi ñan la non football bi mooy xale bi romb ci buntu kër gi noonu ñooñu laa ko yéene nag. Ah, ñooñu ñoo leen mun waay ah, ah, ñooñu ñoo leen mun. ah ñaŋ ñooñu ñoo leen mun. ñaŋ nañ booy pare nañ. nee na nga xamante ni. loolu loolu loolu loolu mu wandoo. yi daal boo leen pare rek. tubaab mu suba la. bu la neexee jëlal 3 millions nga teg ko sama loxo ma téye. man wóor mu fay yàgg damaa war a ñibbiwaat. te bu may ñibbi may ñibbi foo mu yóbbaale ñu xam ñu am tes. foo mu yóbbaale Europe. amul benn suba. Ah, ah. amul problème. amul problème Babu amul problème woo sa jabar mu leb lu ko neex. saa yi bokkoo ci. d'accord ngeen yéen fu yi. dañu fubali dañuy fubali. ñu pare pour fubal. imaam dangay bàyyi nii. xam nga yow loo nekk li muy loo yëg mu siiw. bàyyi Lofandoski soo ko mënul wax Lofandoski. imaam imaam waaw baax na waaw ñu ngi ñu ngi ñu ngi lay sant bu baax. waaw waaw toogaay ñu dem. waaw indil ñooñu. neel neel booy nag dee am nañ problème am nañ problème. mars bi moo dugg dara ah. loolu nga yaakaar rek. aywa aywa tekki ñor waay. mars bi mën naa am la toll. mën naa am la toll. kaay laa lay teg. kat naa la joxewu tur neer semel neer. déedéet man boo ma yàqal sama tur de. gis nga yow sax man. yow yow sa changement bu garaaw bi kii kii warkat la kii du far ci ñun. femelle ne kii du far ci ñun. tudd nga yow faroo ñun. femelle nit rek mooy jàll nga. yow laa xam faroo ci ñun de. sa changement bi war gan nga yow doo far ci ñun de. damay dem maa ko xam. wóoyoo ma bi avant nañ pàccoo xaalis bi. bi. doo ñaan yàlla ñu gañe. waaye waaye waaye booy moom la nga leen di doo ñaan yàlla na ba xal ñoo nga leen di gañe moom. xaaral ma defar sama sama kii ah xaaral préparé jamono jam ay waaye bu la neex sa jabar lépp lu ko neex da xam ne da Baba Diakhousa nee na waaw bunduk moom bunduk moom daw kañ la moom moom te nan waaw eh 3 millions la wax na waaye koor ba set heures ngay daw di dàq ba mënul ñàkk di 3 millions ci weer koor bi. Sénégal a neex a neex suñu réew mi rek a neex ku ñëw ñu teeru la. ñu réew mi rekk a